ak Equivox TV ginnaaw bi ñu leen a nuyoo dal leen ak jàmm ci seen journal de l'arène di leen wax nag désormais di ngeen ma am ci biir journal bi ma ci ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. soxna Aminata Diouf maa ngi lay delloo ziar di kontaan ci taw ak yow trop macha allah. maa la gën a kontaan Babacar naka sedd bi noo koy dundee temps yi. waa sedd bi saf na de. Hmm. moom loo ci mën a dégg fi mu nekk nii metti na xam naa nag maa ngi yow ñoo bokk nuñ koy dundee comme dara waruñu. Ah, suñu doole la ñuy sàngoo. mi ngi voilà ñu koy euh, dooree dagg ak suñuy làmb mais balaa loolu rek dañu dem xool yi revue des titres te dellusiwaat léegi ci plateau bi. asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah. jeudi 14 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb moom tey fa mu xëy fes wala ka mu xëy dalal Pape Abdou Fall daal la xëy tey seqal waxtaan ka mu waxtaan wa nag du kenn ku dul Abdoulaye Dembélé bu suñu lamb Pape Abdou ma jiite promoteur yi nag wala lenn ci promoteur yi boog la mu xëy tey di ko xam ne daal lenn la dana fi mu nekk nii daal ñoom boo bëggee dégg-dégg moom état bi ci boppam daal dafa mel ni ñoom la ñuy déglu wala di leen xaar wàllum wiklo ba tamit ñëw na ci ak la nga xam ne ni mu ngi ko ragal waaye daal jàpp na ne mu nekk nii moom état moo war a maanaam moo war a yëngutu wax te na su état bi waxee ñoom promoteurs yi dananu wax moom Pape Abdou Fall daal xëy na tey ngar daajoo sunu lamb di wax waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu ñëw na ci wàllum huis clos ba daal la nga xam ne ni moom la ca gis ak accompagnement ba nga xam ne moom la leen état war a accompagner jàppale leen bëri na wax yoo xam ne daal seq na ko tey ak Abdoulaye Dembélé moom Pape Abdou Fall waaye yëglikaay ba tamit dafa ñëw tey ci saison 2020 jàpp 2021 jàpp na ne daal soo bëggee dégg-dëgg moom bu fekkente ne am na juróomi xale ngi yoo xam ne daal sunu làmb ne na nañu leen bàyyi xel bokk na ci caatu yoof ma nga xam ne nii mu nga nekk fa nga xam ne nii moom moo di ca yoof ndax yëglikaay bi ne na caatu yoof boo xoolee mu ngi ci huit combats sept victoire benn défaite yemu ca booy Dakar tamit ma nga xam ne mu nga ca école de ba Doudou Bakassar yëglikaay bi ne na moom i tamit ku jara bàyyi xel la moom booy Dakar ndax mu ngi ci dix combats dix victoire keneen ka ca des koo xam ne waras na koo bàyyi xel mooy Jackson bu géejawaay mbooloo yëglikaay bi xamal nañu ne daal Jackson moomu maanaam Jackson junior neuf victoire dajale na ko ak ñaari defet muy ku ñu war a bàyyi xel ka ca des nekk école booy ñang moo di kalmu ñu naan ko grand bañik moom tamit daal bëree dóor bi fi mu nekk nii mu ngi cay wane boppam ak six combats six victoire keneen ka ca des tamit mooy maama lamin tarkindaa ba ca jàmm gën moom tamit mu mel ni yëglikaay bi ne ne kees war a bàyyi xel la maanaam dix combats am na ko huit huit victoire ak la nga xam ne moo di ñaari defet làmb daal xëy na tey ci xale yooyu jàpp ne daal ay xale lañ yoo xam ne daal ku leen bàyyiwul xel ci làmb itam xam naa ne kon sa xam-xam daa soriwul sunu làmb xëy tey defal nu ko gëstu ki nga xam ne nag moo jiite làmbi réew mi moom di Bira Sène yëglikaay bi xëy na tey seq moom ay wax moom nag daal la mu jàpp ne na daal ñoom waa CNG daal seen yëngu wala seen joué daal na ci daal seen yéene daal maanaam di sax organiser ay làmb mercredi moom Bira loolu la xëy tey di ko wax fa mu jiite woon làmb nag di ca région de Kaolack moom daa mel ni fi mu nekk nii ne moo yore sport daal daa mel ni nag dalal ba ma doon dalal wala déglu ba mu ngir koy jiite lambi Kaolack daal daa mel ni ci alxames ji nag la mbir ma di jeex ca la liggéey booba daal di yem daal di jeex balaak moom ma nga xam ne ni mbër la moom daal ay ambition xëy na tey wax ko wala na bëgg a ci lamb ji ne na bi nga xam ne moom mooy le roi des arènes moom daal ci ay tànkam la fas yéenee jaar ngir la nga xam ne ni moom la bëgg def ci lamb mu mën koo def Dame Tine moom di seen promoteur ne ca Thiès la mu xëy xamle daal ne na ñoom fi mu nekk nii daal la leen di yoot ñoom région de Thiès rawatina promoteurs yi lambe mooy année balance maanaam at moo xam ne daal kenn du bàkku kenn du tëgg moom Dame Tine daal loolu la xëy di ko wax ci sunu làmb buñ fa jógee dem fa nga xam ne nii nag moom moo di ca record record moom la munu xëy indil bokk na ci Eumeu Sène mu taay si nga ak écrim ba nga xam ne bi jàngat na ko ci juróomi at yi nga xam ne moom la ñu génne mu mel ne ki nag si nga moom ah daa ni fa ñu jàpp dëgër na te itam nag ñu ngay dox de ndax 39 victoire dajale nañ ko ak 25 défaites ci juróomi saison yi nga xam ne moom la ñu génne yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dinu xamal lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci fa nga xam ne nii moo di record bàyyi ma ñoon ma nga xam ne ni moom yëglikaay moo xam ne boo bëggee dégg dëgg bëri naag champion bu ne ndax ci le roi des arènes ba tey ci xoyantaan maanaam bàyyi mooy koo xam ne daal ci biir làmb moom la mu ca wane ci ay combat yu mu bëri ba yegg ci lool yëglikaay ba xëy na tey ñëwal ñu ci lu mel ni ki noonu ak treize victoire yoo xam ne am na ko quatorze défaites ak benn sans verdict ak benn match nul yëglikaay ba xëy na tey ñëwal ñu ci lu mel ni ki noonu moom ma nga xam ne ni moom moo di record ba tey record yemu ci ñëwaat na ci rëg-rëg ak ña xam ne nii wala bokk rëg-rëg ak ñamu signal ñu leen di wax one champion mel ni ki daal ñooñ la Omar Kane rëg-rëg daal di signal yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu moom record waaye doon fa yem bu nu demee tamit fa nga xam ne nii moo di ca Equivox TV fa fa moom Gaston Mbengue mu nga fa di wax diggante ak mbëri ak taxawaay ba mu jàpp ne war nañ koo am te amu ko waaye nag li am ba des daal mooy maa leen ko wax tey loolu moo nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw yéen nag ci journal suñu làmb kii di Pape Abdoulaye fàll di promoteur di président de promoteurs daal di ñëw ak yéen nag ci euh, combat wi clos yi di xam ne rek ne fi mu nekk nii réaction état rek la ñuy xaar ndaxte état bu réagir rek ñoom promoteurs yi dinañ euh, daal di réagir Babacar loolu ban jàngat nga ci mën a def. waa maa ngi lay nuyuwaat di la ziar encore une fois di am contentement di la ñaanal jàmm di la alal nga dal ak jàmm di wax ne rek. àddina moom nii la tëddee quoi lu kenn mën ñaar ko daax mhm. te defe naa lii daf may neex trop parce que dina gën a mën a tax ñu gën a mën a exprimer mu wax mhm. di la wax ah nga ñëw nii yàlla na nga li ngay def ak jàmm barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la loolu Pape mhm. li mu wax loolu defe naa am yi ah moom moo jiite ay am na promoteur yu mu jiite Pape Abdou Fall yaa ngi dégg nekk acteur boo xam ne tey ci lamb wax dëgg yàlla kenn mënatu la laam-laamee taxawaayam ci lamb ay at mu nekk fii di tëgg ay événement yu mag ndax defe naa Modou ne yaa bi nga xam dëgëree tëgg na ko mooy Siteu ak Papa Sow mhm. yàlla def bëri wuñ ko kon defe naa mu jiite ay promoteur nekk kilifa si lamb <laughs> defe naa li mu wax il est l'heure que wax su état mhm. waxee nag ñoom dinañ wax ñoom promoteurs yi effectivement loolu moo war a am te état bi wax bi pour man benn wax la fi mu nekk nit ñi li ñuy déglu mooy ndax làmb ji dina am wala du am boobu ba tey nag mbir mi yàgg na xaw ma lu ne ci ginnaaw yàlla yàlla bi demal dikkal bi yeneen euh, yeneen kii yi des euh, yi nga xam ne ñoo des ci sport ak a doon ñoom ñu ngi def seen ay compétition kon nag li ñuy waxaat daal duñu sax interpeller le ministre mais le chef de l'état président Macky Sall la ci làmb ji mu xool nu muy def pour ñu organiser wu comme yeneen mbir yi mu bu fekkan dañoo aj lépp Mm-hmm. kon mën nañoo toog mais comme nag am na ñuy doxal nañu xoolal promoteurs yi nu ñuy doxale mbir mi nag principal problème bi mooy promoteurs yi parce que li tax mm-hmm. mooy ñoom ñoom ñooy génne xaalis bi mm-hmm. kon koy jàppale ci promoteurs yi nga war a doole doole leen pour xool ñoom naka la ñu mën a defee làmb quoi nu ñu mën a tëggee combat yi dëgg la Babacar mais ñu xam ne ku ne ku tudd làmb tudd public. ndaxte boo tëggee sa làmb bëgg nga public. nga yaakaar ne bu ñu organiser ay combat huis clos dagg du am ki nga xam ne moo di promoteur nga yaakaar ne dina ci génn. waa ki ko ciy génne mooy ñi jiite ki ki yore réew mi parce que comme moom dafa ñëw def investissement war a tëgg làmb pour am lu mu def ci réew mi bu tëggee làmb nag tey ak contexte bi ñu ne muy contexte coronavirus teñ ne dajaloo la ñuy bañ dañuy xool nu ñu organiser woo maanaam ànd ak ñoom yore santé bi xool bu fekkee ne stade bi fa war a def dix mille personnes mhm. ñu ne kon nañu cinq mille yu dugg kii toog fii kii toog fële ñu ñi ñuy sorante yi ñëw boo ko jaayee mu nekk vingt cinq millions kon xam nga am na lu bëri lu des mais nag loolu terewul amateur ñu dugg ci lamb ji la ñu bëgg mais nag contexte bi ñu nekkee est-ce que permettre na ko loolu mooy question bi waaw. d'accord Babacar bu ñoo jógee foofu nag ñu daal di euh, dem ci euh, juróomi mbër yi nga xam ne dañoo dañ leen a war a bàyyi xel bu baax ci euh, saison deux mille vingt deux mille vingt et un bi muy Thiatou Yoff Mama Lamine Jackson Junior ak Kalmu Ndour ak ki nga xam ne moo di Boy Dakar. waaw ñooñu ay xale lañ yoo xam ne ami moom ñu jar a bàyyi xel lañ ndax kii ñu njëkkee muy Thiatou Yoff mii. Mhm. ku ne gis na daaw jël bu rëy bi mu daan bébé jul def fële ci arène nationale mhm. maama Lamine boobu ba tey mu ci tracé bu doy doy waar macha allah combat bu mu jokkee bu Fatick Jackson Junior fa mu jaar ak Pape rakku Lagros daaw kal mu nduur itam ku ne gis na ni muy ñëwee booy Dakar waxaale wuñ ko muy ay xale yoo xam ne loolu yëglikaay yi wax mhm. nañ leen bàyyi xel te képp kuy dem ci làmb xam nga ne xale yooyu ñu juróomi xale am na yeneen ñu des wax xëy na xëy na tey ñii la jukki war a bàyyi xel lañ et puis di leen wax ne tamit yoon ko bàyyiwul mën nañoo ëllëg fi ñu di xaar ñu yegg fa li garaaw rek mooy booy dem ci benn affaire ñu ne la yaa ngi koy teg ci yoon wala am nga loo ci mën bu ci gis sa bopp bés boo ci gis sa bopp rek am yi jàppale ne ngi wàcc sa bopp mm-hmm. te defe naa ñoom lool xalaat naa du leen dal ci seen kare parce que ay xale la ñoo xam ne am nañu avenir u làmb bu baax a baax dëgg la nag Babacar fi nekk nii xale yi dañoo bëgg làmb te doole ji bëri na macha allah xarañ nañ torop waaw ah waaw làmb nag da di yëfi góor làmb suñu la ami dëgg la làmb suñu la de et puis ci réew mi nag mm-hmm. fii ci réew mi lu ñu fi organisé ci stade yi lamb ko mën a feesal loolu moom yàlla dogal na ko ndax su suñu yëf la jëggaaniwuñ ko mhm. noo ko moom mhm. voilà Babacar bu ñu jógee foofu rek ñu daal di jàll ci kii di Bira Sène Bira Sène nekk président wu CNG. moom nag nee na suweewam mooy li nga xam ne CNG di di tëgg combat les mercredis moom daal bëgg na CNG di organiser combat yi. mercredi mën naa ne parce que moom moo jiite làmb ji. Mhm. comme moom mooy président wu CNG mhm. a def lu dul looy yàlla na am ak jàmm parce que tamit comme moom moo jiite pour ñu tëgg ay mercredi. Mhm. defe naa ne lu war a mën a nekk la encore une fois kon Bira ñu koy ñaan rek mission boobu yàlla balaa ñuy ñëw nag ci CRG bu Kaolack succession wu Bira Sène maanaam ki remplacé Bira actuellement foofu ci Kaolack inspecteur des sports fini le job ce jeudi maanaam liggéey bañ fa daan amal daal fi mu nekk nii yemb na ba noppi. waaw loolu am na mu mel ni kon daal la ñuy xaar mooy rek xool kuy jël place ba mhm. loolu la ñuy xaar fi mu nekk nii ñuy wax nag ka koy jël yàlla na def lu raw la fa Bira Sène defoon moom jiite woon CRC bu Kaolack mhm. di profité du nuyu waa Kaolack yëpp di nuyu Saloum Saloum fu ñu a ak waa Kaolack man dama bëgg Kaolack ah mhm. laa tiitaroo waaw man mi itam Bawol laay tiitaroo Bawol ci Saloum Saloum yi <laughs> baax ma acca voilà Babacar bu ñu jógee nag ci suñu làmb ñu daal di rek euh, dem ci journal bi di record mu ñëw ak euh, Eumeu Sène ak écrim di écrit Taïsinga ñoom nag ñu doon écrit boo xam ne vraiment dañoo am punch ndaxte ci juróomi at a ngi nii ñu daal di collecté li nga xam ne moo di 39 victoires ak 25 défaites ci juróomi at yooyu. waaw loolu day wax dëgg yàlla lu baax la parce que boo xoolee Taïsinga yàggul parce que Eumeu Sène bi mu jógee bul faale. Mm-hmm. yaakaar naa ci la kéré Taïsinga. yàggul ñu koy nuyu di nuyu ku mel ni ñoom Landiang ak mm-hmm. ñoom Khalifa ñaa président bi mu mel ni cinq ans yooyu boo xoolee ci la ñu am 39 victoire ak ñaata defet nga ma wax léegi 25 ah 25 ak 25 defet mu mel ni kon ami loolu moo lay wan ne ah ñu ngay liggéey parce que tamit boo xoolee résultat bi mën mm-hmm. nga ne lu baax la yaakaar naa nag loolu tamit li koy may rek mooy liggéey parce que li ma la rek mbër moom

capp na fu nekk fu nekk voilà ci làmb ji ci làmb ji bëri <laughs> bàyyi le grand champion yow da ngaa ci ah, làmb ji dégg nga fu ah, nekk ci fu ne daal mbër mu mag la bàyyi ma jot ñu koy nuyu di ko siyaar lii moo lay wan ne moom ci làmb moom tamit nekk na mbër moo xam ne moom bu gisee combat day bëri parce que mm-hmm. li mu bëri ci ay combat bëri na mm-hmm. ba Gàmbi daaw gis nga fa mu mujjee xoyantaan muy mbër moo xam ne itam ci côté euh, cadre sport jaar na roy maanaam parce que li tax mooy du xeeb adversaire bàyyi ma ñoon bëri ñoom mhm. mais day jàpp ne sport la war na leen mën a may sax mu bëri ak ñoom mu daan leen wala ñu daan ko mu mhm. continuer te at mu jot yàlla dimbali ko ba am mu am combat kon bàyyi ñu koy nuyu di ko genre bu baax a baax voilà moom dama nekk na koo xam ne palmarès am rafet na trop te riche voilà Babacar mu mel nii rek euh, daal dinañ ndar keppe xibaaru làmb ji di leen jox dig daje beneen yoon Babacar yow lan mooy na ma ko umbee woon rek mhm. mais di ñaanal ñi ñu siif tamit à travers la moo wax ne topp bi ñuy topp di ñu jubbanti ci ay mhm. seen na leen yàlla fay contentement la ndax fekk kon ñoom ñëpp fu ji waay mën a nekk rek ñu ngi lay bëgg di la ziar mais tey nag damay dem ba Petersen rek

parce que yaa ma ma xaw a yaaji nii tey. da neex defar nag Babacar. Ah. Mm, da nga neex a defar. ah waaw loolu boo ko waxee dinaa ko ndax yow koo defar maanaam mu jàkk yàlla na la yàlla jagal. amiin <laughs> voilà lii la woon ñu ngi leen di jox dig daje suba ak jàmm incha allah.